boobe nag dañoo woote woon Ndar Saint-Louis ngir nag ab ambulance daal di fay jugee ambulance bi si boppam moom bi muy toll diggante Ross Béthio ak Richard Toll ci la def accident mbëkkante ak benn oto ba lu toll si ñett ci ay nit daal di say ñàkk seen bakkan lii nag mooy giraawaal yi ak musiba ma bakumba dëggantaana ambulance bi nga xamante ni moo doon wàllu ji ay nit moom ci boppam moo mujj def accident libération yéen a kaay ñu fekk fa maître Omar Youm ministre bi ñu dénk dem beeg dikk bi. mu fay le nag ne danañu jël ay daan lal ku ci ndoddul ñi nga xam ne ñooy def ay accident ci tali bi ndax la sa ëpp lépp ak reewande la waaye li jaaxal ñëpp moom ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk walu dem beeg dikk suuf si naka nag nanga def ay jéego xalaat fexe ba nga xamante ni accident yi wàññeeku moom ci boppam la ab cortège am def njombe giraawaali musiba ma ba kumba gu rëy yéen kaay gii di Sud Quotidien ak Le Témoin mu ñu xamal nañ nag école privée yi jamono ji mere nañ lool nguurug Sénégal la waral nag moom mooy état bu Sénégal da leen a amee lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay milliards te soo moytuwulee nag ñi nga xamante ni ñooy dog di am bac maanaam école privée yi du ñu nangu état bi daal leen fay orienté tànk fayu leen li nga xam ne mooy seeni koppar ñoom jàpp nañ ne engagement yi nga xamante ni nguurug Sénégal jëloon na ko ba léegi ni nag maanaam wàccoowut ak moom respecté wu ko France daal di xëdde na yéen a kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu li jaaxal ñëpp kay mooy état bu Sénégal Sall moom nee na douze milliards la ameel école privée yi école privée yi ñoom ñu ne dix-huit milliards la leen état bi amee la yéen a kaay gii di l'observateur mu dikkal ñu ci drogue bi nga xamante ni jàppoon nañ ko ci port otonom bu Dakar mu tolloon ci junni ak fanweer ak juróom-benn ci ay kilo yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñuy xamal ñu nag waa forum civil ñoom ñuy sàkku ci nguurug Sénégal maanaam mu jël ay matukaayam ci ñi nga xamante ni ay trafiquants de drogue lañu waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ joxar bi baaraamu tuuma ca ñu si mel ni compagnie Grimaldi ak société Dakar Terminal yéen kaay gi mu daal di bàyyi mbir moomee dikk si coowal pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xamante ni nag la ñuy tuumal Aliou sal ak Franck Timis ci lu jëm ci ay loxoore ki njaaxum ak i njublang ak i tojange yéen kaay gi nee na waa di gi nga xamante ni ñoom lañ dénkoon enquête bi daal di nañuy pare ca mbir ma lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay nit ñoo xamante ni déglu nañ leen ca boobale dossier yéen kaay nañu nag en tout cas daal li am solo ci mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal maanaam bokk na si dem ba sa cëppaa ndaw ga ñu xam dëgg gi fan la fare te loolee sax moo gën si ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaa la gën ci état bu Sénégal ba pare tamit askan wi bu ñu sañoon daal mbir mi leer nañ ñi si seen bopp observateur mu ñu xamal ñu est-ce que mbir mi dina leer ndax nag procureur nee ma parquet bi ñoom nag nee na ñu amuñu ay preuve que ne Aliou Sall moo def njublanki journal bi nee na maanaam wàllu woowu te mbir mi demagul fenn doyen des juges moom nag jamono ji daan nay jël dossier ba Ousmane Sonko njiitul Pastef tey ji nag dina janoo ak taskatu xabaar yi ci digg ba gi ngir nag wax ci lu jëm ci fer de la Falémé waaye nag soo moytulee dina nag daal di tontu maître El Hadj mi nga xamante ni maanaam yàq na ko musiba ak mbelengaan fan yi nga xamante ni moom la ñu génn Cheikh Tidiane sek bu parti démocratique sénégalais moom nag moo waxoon ni ki déemu ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall daan nañuy gisante ngoon ko tabaski loolee waa pale ba jege ñaale Macky Sall ak waa PDS jege ñaale Abdoulaye Wade weddi nañu ko ba tëdd sat naaj wa nee nañu loole lépp daal ay ngembal foog la maanaam ay kàcc la ay fen la dara du ci dëgg ba tey yéen kaay gi di record mu ñu xamal nañu nag ki nga xamante ni mooy Zinedine Zidane mi yor waa Real Madrid ak club boobee nga xamante ni jamono ji si ay jafe-jafe yu métte métti ci la nekk Zidane nag nee na waa Real Madrid jamono ji Kalidou bali laa soxla te nag bëgg naa ngeen def seen kem kàttan ngir nag ñu daal li mën a andi fii ci Real Madrid